Yen ñepp rek fu ngeen mëna nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen di boole baatu Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ànd ak mbégte ak kontante di sant yàlla nak bu baax moom mi nga xam ne moo ñu may fekk ak tal di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa di ñaanal saxaaba yi di ñaanal suñu mag ñi ak képp koo xam ne dangay léggéey ci ci alquraanul karim moo xam ngir mokkal ko walla jàng ko wala firi ko wala lu mu mën a doon rekk ñu ngi nuyu waale al ustaaz al xataat Serigne Samba Diagne yal na yàlla fay ko ci liggéey bi nga xam ne moom lay def ak i kemam xam ngeen ne bu ngeen fàttalikoo ñi ngi tegoon suñu baaraam ci téere yi nga xam ne yennat la ci téere yoo xam ne chia ñoo ko bind bëgg nag senegale bi xam lan mooy téere yooyu ba yennat ci ay pas-pas yennat ci ay principe yennat ci ni ñuy firee alquraanul karim nga mën ko xam ci moom ba bu ñu leen tuddatee nga xam ñooñu ñooy ñan téere bu ñetteel bi bi ñuy tàggatoo keroog maa ngi lay wax téere bu ñuy tuddee kitaabu aliyin muy téere boo xam ne nee nañu imaamu aliyin radiyallahu anhu moo ko bind téere boobu wax nañu ne moom moo doon dicté ay nit di ko bind wax nañu ne itam dajale na ca xeeti juróom-benn fukki xeeti xam-xam yu aju ci alquraanul karim loolu moo tax sax ñoom nee nañu mboolem kuy bind ci alquraanul karim lu demee nii al itqaan bu imaamu sayuti lu demee nii li ñuy tudde aljazariya lu demee nii li ñuy tudde tuhfatul atfal lu demee li ñuy tudde manahilul irfan fi ulumi alquran ba ci Shaatibiya ñoom nee nañ bépp téere buy bind ci xeeti xam-xam yi aju ci alquraanul karim yaa nga inspiré walla nga jële ca téere boobe ñetteelu téere ci téere yi nga xam ne ci téere chia yi la bokk téere bu ñuy tudde aljaamia téere boobu ñoom nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko doon dicté nee nañ ñi ngi ko bind ci ab der der boo xam ne wax nañu ne gudda ñaay ba ma toon na juróom-ñaar fukki xasab yow mi nekk dakaar te xamuloo xasab mooy li tàmbulee ci catu baaraam bii bu digg bi ba ci conc muy kuddu nee nañ téere ba der ba boo ko tàllalee motoon na soixante nga xam ne kon daanaka dangay wax ne trente mètres la ñu ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko doon dicté der bañ ko bind ñoom nee nañ riq la tudd nee nañ imaamu Ali radiallahu anhu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dicté mu bind ko ñu ne leen waaw téere boobee lan moo ca nekk ñu ne téere boobee day lépp lu dagan ak lépp lu xaram ak lépp loo xam ne nit daf koy soxla ci dundam ma nga ca téere boobee wax ji ma lay wax soo demee ci téere bi ñoo tudde ayaanu chia ca xaaj bu njëkk ba ci page 166 ba ci 168 daa ko ca fekk kon da ngay gis ne xoolal ma téere bu nu mel nga askane ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne moo ko doon dicté xoolal ma téere bu nu mel nga askane ko ci imaamu aliyin ne moom moo ko doon bind kon ana saxaaba yi fi nekkoon di dundak ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga ne boo seetloo bu fekkee yaa ngi ñuy topp waxoon nañ la ñi nga xam ne ñoo daan bindal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ña ca jiitu woon mooy alxulafaawul arbaa ubay ca la bokkoon muawiya ca la bokkoon zeyd ibnu thaabit ca la bokkoon ana lan moo gën a lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bindulu ci alquraanul karim amul lu ko gën a kon naka la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di binduloo téere bu ñuy tudde aljaamia bindkat yooyu yépp nekk fi saxaaba yooyu yépp nekk fi te kenn xamul téere boobu kenn bokkul ci ñi ko doon bind rawatina nag alxulafaawul arbaa xanaa ñu ne kenn rek moo ko xam kenn rek moo ko doon bind te mooy imaamu aliin radiallahu anhu kon dangay ngay xam ne wax jooju ay sos la téere bu ni mel nit a ko fent wante yonent bi alayhi salaatu wasalaam bindu ko diktewu ko imaamu aliin mi ñuy wax min minhu bari kon loolu lu ñu sosal imaamu aliin la te lépp rekk ngir yëkkati imaamu aliin ngir takkal ko garaat ngir wone ne gannaaw yonent bi mo gën ci kaw suuf ali yin garaat yi mu am yalla ko ko takal jëfam moko ko takal lol motax ndaysan suñu bay ju bax ja yalla na yalla yeeram ko geej gu bari won nga xam-xam te deggon khilas te monona jangale bay al haji ibrahim saxo radiyallahu anhu gis ngeen mu di len net li ngontal imaamu alin radiallahu anhu ak kàccoor boobe nga xam ne mooy amrun ibnu wadd nga xam ne moom dafa lëjaloon jullit yi torop wante keroog bi mu dajeeg sayduna aliyun radiallahu anhu gis nga ni ko sayduna aliyun def kon sayduna aliyun radiallahu anhu jaloore yi mu am ci lislaam ëpp nañu di ko sosal di ko waxal loo xam ne minhu bari moom waxu ko defu ko ñeenteelu téere bi ci téere yi nga xam ne mooy téere chia yi mooy téere bu ñuy wax aljafru ibnu Khaldun xam nga ne benn historien la d'origine marocaine téere boobu mu bind tudde ko al muqaddima jàngale ci administration jàngale ci nu ñuy organiser réew ak état et cetera ibnu xaldun nee na téere bi ñuy wax aljafru ku ñuy wax haaruna ibnu saad moom moo ko bind ñu ne ko fum ko jëlee ñu ne mi ngi ko jëlee ci jaafar saadiq xam nga jaafar saadiq ngir bi ñuy tuddee ngiru chia moom moo ko sos actuellement ngir yi nga xam ne ñuy dund boo ko dee seet mën nga ne juróom-benn la ndax boo ne ngiru Malik ne ngiru Abu Hanifa ngiru imaamu Shafii ngiru Ahmad ibnu Hanbal ak Jaafar Sadiq mi nga xam ne chia la heure boo déggee ñu wax la masala delloo ko ci jaafariya muy Jaafar Sadiq xamal ne kooku chia la am na ngir bu ñuy wax Daawuda Zahiri yi ay xalaatam am na yu fi des mi ngi ci biir téere yi léeg-léeg nga dajeek moom téere bu mel ni almuhalla libnu hazm téere yu mel noonu ci zahiriya la bokk muy ngiru daawuda zahiri yi jafru boobu nag nga xam ne téere la wax nañu ne la nga xam ne moo ca nekk moo di ci alquranul karim aaya yi nga xam ne dafay wax loo xam ne day mel ni yadullahi fawqa aydihim ñu di ko tudde mutashaabihaat soo ne loxol yàlla boroom xam-xam yi biñ ñëwee di ko firi ñii dañu ne man day loxo la wax kon dama naan yàlla am na loxo waaye nag loxo ba nan la mel man xawma ko loxo ba yàlla ca yàlla waaye bul jàpp ne dafa mel ni suñu loxo yii la muy firi bi gën a maandu ñeneen ñi moom bu ñu ñëwee dañu naan buñ ne yadullaahi loxo yàlla kàttanal yàlla lañ koy tekkee wala ñu tekkee ko xéewalu yàlla loolu mooy ta'wil mi ngi mel nii bu ñuy wax naan yàlla day wàcc ba ci asmaanu juróom-benneel naka lay wàcce ñoom nee nañu téere boobu ñuy tudde aljafru soo demee aaya yu mel noonu lañ ca dajale di ko firi di ko leeralal nit ñi kon téere boobu benn la ci seen téere yi ñoom ñi nga xam ne ñooy chia wax jii ma la wax boo demee ci téere bu ñuy wax ayaanu chia ca xaaj bu njëkk ba ci page 182 daa ko ca fekk juróom ñoom am na téere bu ñuy tudde kaamilu Fatima ñoom chia yi ñu di ko tudde mushafu Fatima su ngeen demee ci téere bu ñuy wax albasair am na ku ñuy wax abu abdillah dafa am ci ay àndandoom yu ko laaj ne ko waaw ñun de dafa am benn téere bu ñuy dégg ñu di ko tudde kaamilu sayyidatuna fatima loo ci xam abu abdillah boobu ma lay wax nee na sayyidatuna faatima bi fi pàppaam jóge am na juróom-ñaar fukki fan ak juróom soo ko seetee dafay nekk ñaari weer ak quinze jours nee na booba suñ Fatima dafa jàq dafa tiit dafa triste ndax li fi papaam jóge mu ne nag Jibril moo daan ñëwal Fatima di ko dëfal di ko jaal pàppam nee na Jibril nag jamono bu ma saana ñëw daf koy wax naan sa papa ma nga ca palaas sàngam nangam sàngam la fay def fa mu nekk nangam ak nangam a fa xew nee nañ ñu di ko bind ñu ne muy waxaale Fatima naan ko yow soo fi jógee sa doom yi muy Xasan ak Xuseynu ci ay metit lañuy ñuy dund ci ay nangam ak nangam danañ leen bunduxataal xataal leen fitnaal Xuseynu sax moom dañ koy rey nee nañ ñoom bi Jibril daan ñëw di wax loolu sayyidatuna Fatima nee nañ naa Aliyun moo ko daan bind ñoom nee nañu loolee nag moom lañu ñu tudde kaamilu Fatima wax jii ma lay wax boo demee ci ayaanu shia ci xaaj bu njëkk ba ci page 188 daa ko ca fekk billaahi aleykum yow mi toog ci kanam télé bi xoolal ma yii sos ñu ne yonent bi aleyhi wasalaam bi mu faatoo sayyidatuna faatima dafa toog ñaari weer ak fukki fan ak juróom affaire bi jàpp ko nee nañ nag Jibril ñëw di ko dëfal naan ko sa papa day ma nga palaas sàngam nangam moo fay xew naa aliyun di bind daal di ne ko sa njaboot yi boo fi jógee danañ nekk ci ay problème danañ nekk ci ay fitna danañ nekk ci nangam sa doom jii du xuseynu sax dañ koy rey xam ngeen ne karbala lañ ko reyee muy ñaari baat yu ñu boole karbun wa balaa un ñu ne balaa xoolal ma yii sos xoolal ma yii wax nga xam ne dañuy sosal imaamu aliyin di sosal sayyidatuna fatima di sosal yàlla di sosal yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sosal jibril xoolal ma lii rek te dara taxut lu dul yëkkati nit te mooy imaamu aliyin ak sayyidatuna faatima ak lépp loo xam ne ñoom dañ koo jaboote kon daldi naa lay indil juróomi téere ci téere yi nga xam ne ñoom chia seeni téere lañ téere bu ci nekk wax naa la ku ko bind téere bu ci nekk wax naa la la ca nekk su ko defee nag yooyu soo ko xamee danga nga di am benn xalaat ba bu ñu la waxatee chia rek danga xam ñii ñooy ñan ban pas-pas lañu am ban pas-pas lañu am ci saxaaba yi ban pas-pas lañu am ci yonent bi ban pas-pas lañu am sayduna aliyun ak saydatuna faatime ak njabootam loolu dafa bokk ci liy tax booy firilu alquran wala nga di ko déglu wala nga di ko liir ba àgg foo xam ne am na yenn aay yu ñu firee benn façon bi da ngay daal xam ne lii waxoon nañ la ko ci maalikiya dafay taxit boo demoon ba dajeeg moom ci réseaux sociaux yi dangay xam ne waxoon nañ la ko ci maalikiya xam nga ne fii ci senegal léegi am na fi ay sénégalais yoo xam ne ci mouvement boobu la ñu bokk dana tax boo dajeeg ñoom ci jàkka ji ñuy wax nga xam ne ñii ci école bee la ñu bokk dana tax boo leen seetaanee ci télé ñuy wax nga xam ne ñoom ci école boobu la ñu bokk dana tax boo leen dégloo ci rajo ñuy wax nga xam ne ci la ñu bokk dana tax boo yemee ci ñoom ci YouTube bi nga xam ko dana tax boo yemee ci ñoom ci internet bi nga xam ko bu ko defee nag nga daal di xam ne kon Malikiya TV li nga xam ne mooy rôle mooy jàngale mooy yeete mooy encadré mooy orienté fexe ba nga xam ne sénégalais bi ci wàllu diine ci wàllu tariqa ci wàllu société bi ci wàllu pas-pas dafay xam fu muy teg tànkam te fam koy teg day doon fu wér day doon fu baax ndax mooy tax ëllëg mu mën a am résultat bu baax xanaa benn téere rek ci seen téere yi nga xam ne day firi alquranul karim benn laa ciy tudd muy miraatul anwaar wa mishkaatul asraar téere boobu benn téere la ci téere yi nga xam ne booy wut téere buy firi alquraanul karim ci chia man nga ko jël soo ko jëlee nag xool ko xalaat yii ma la wax danga nga daal di gis ne ñoom ni ñuy firee alquraanul karim la ca gën a bari wérut dëppoowul ak ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam firee dëppoowul ak ni ko làkku arab firee dëppoowul ak ni ko grammaire arabe firee dëppoowul ak ni ko orthographe arabe firee dëppoowul ak ni ko boroom xam-xam yi fire dëppoowul ak li ñuy tuddee ak tafsir bil masuur muy li ngay firi ci alquranul karim bi am cëslaay loo xam ne lu wér lay doon su ko defee loolu dama ne woon naa ko indi ndax dafa aju ci alquranul karim pour nga xam ko ndax nga man ko jariño yow mi nga xamne da nga safo malikiya fo tollu di ko mu man la amal njariñ tombu fukel ak ñett ma ngi ñew ci li ñuy wax traduction xam ngeen yeen ñepp ne alquranul karim ci ko arab la wacc wante yonent bi alayhi salatu wassalam bi ko di yonni daf ko yónni ci àdduna bi yépp ne ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yónni ko ci nit ñi yónni ko ci jinne yi xam ngeen ne àdduna bi ñi ko dëkke doonuñ ay arab rek am na fi ñeneen ñoo xam ne duñ ay arab majorité bi dëkke àdduna bi di ay jullit doonuñu ay arab kon bu alquranul karim wàccee ci làkku arab inna anzalnaahu quraanan arabiyan keneen koo xam ne du ab arab ñëw dugg ci lislaam war naa xam lan la alquran di wax te moom nekkul ab arab kooku nag lan lañ ko koy defal mun nañ ko ko traduire lal alquranul karim mbokk yi ngir ñu traduire ko boroom xam-xam yi dañ ci am ay wuute est-ce que dagan na traduire ko walla daganut am na ñu ne daggana am na ñu ne daganul wante li gën a wér mooy dagan na xam ngeen ne fi àdduna tollu jullit yépp bàyyi alquraanul karim ci làkku arab duñu ko traduire ci beneen làkk xam ngeen ne loolu xel nanguwu ko te wax ne da nga bëgg a l'islam da nga bëgg tas alquranul karim da nga ko bëgg a jàngale ba nit ñi comprendre ko loolu àndul ak ñàkk traduire alquranul karim alquran jooju nag buñ koy traduire sens bi la ñuy traduire maanaam yi maanaam baat bi li tekki loolu nag bari na ay boromi xam-xam yo xamne ne traduire nañ alquranul karim ci ay lak yu bari wax nañu ne sax biñuy def ay recherche ci ñi nga xamne ne traduire nañ alquran gis nañu lim bi àgg na ci 120 vingt tarjama manam tey kamil bi da nga fekk ñu traduire ko ci téeméer ak ñaar fukk ci ay traduir am na ci trente cinq luga maanaam boo seetee fanweeri lang ak juróom traduire nañ ci alquranul karim mu nekk ay téere fanweeri làkk ak juróom firi nañ ci alquran ci mbind ci làkk yoo xam ne yu wuute la yu tas ci àdduna bi bi ci gën a siiw nag mooy bi nga xam ne George Sale al Ingilizi yi moo ko def benn anglais ñu di ko wax George bosam mooy bi gën a siiw ci tradition yi ñu def bind ko ci alquranul karim ci anglais parce que moom bosam dañ ko def mu jeex ñu génnewaat ko moolaat ko mool nañ ko fanweeri yoon ak ñeent kooku mooy ki ci gën a siiwle ku ñuy wax George benn anglais la def na traduction alquranul karim ci anglais wóol nañ ko fanweeri yoon ak ñeent kon boo xoolee anglais yi ñu farlu lañ parce que traduction yi fi nekk yi ci ëpp anglais la te ñoom ñoo ko njëkk a def ñi ci topp français yi ñomi traduire nañ alquranul karim ci ay téré yu bari langue bi ci top ëpp ci luñu traduire moy allemande italienne sok ci top kon bo dé xol ci aduna bi lak yi gëna siiw ñu traduire ci alquranul karim bi ci ñëk moy anglaise bi ci top moy français bi ci top moy allemande bi ci top moy italienne mu am nag yeneeni làkk yoo xam ne ci àdduna bi itam traduir nañ ci alquranul karim wante dañ leen di wax rek ne leen bi nga xam ne yi nga xam ne ñoo ci ëpp lu traduir mooy ñeenti làkk yi ñu leen wax bu ngeen demee ci làkku perse da ngeen ca fekk juróomi traduction ak turc traduire nañ ko ci soo demee ci chinois yi da nga ca fekk ñeenti traduction soo demee ci latin da nga ca fekk ñetti traduction naka noonu boo demee ci afghan am na ñaari traduction am na langue bu ñuy wax jaawoo waaye nag bëgguma wax ne traduction yooyu ba léegi yokkuwut mi ngi yokk kon li ñu bëgg a wax rek mooy alquranul karim téere la boo xam ne ñi ngi koy traduire ci yeneeni langue pour askanu langue yooyee mën ko comprendre ba ci wolof am na ci benn sénégalais boo xam ne traduire na maanaam firi na alquranul karim ci wolof ñu def ko téere xam ngeen ne sax doon nañ ko teg ci rajo Sénégal bu ko defee kon téere la boo xam ne ñépp a ko yittewoo ndax boo doonee ab jullit fekk alquraanul karim muy téere bi gën a rëy ci sa téere yi nga bëgg a xam li ci nekk il faut que nga jàng làkk arab ba man ko mais ñépp mënuñu àgg foofu kon ñi jàng làkk arab ba man ko ñoom ñoo koy jële ci làkku arab bi indil ko ñeneen ñi ci làkk wi nga xam ne ñoom moom la ñu dégg wante nag da ngay bàyyi xel ne ñi nga xam ne dañuy traduire alquranul karim am na ci ñoo xam ne seen làkku arab bënnut seen grammaire arab bënnut seen orthographe bënnut ñooñu bu ñu traduire il faut mu am sikk bu ñaareel bi mooy làkku arab ni mu bindoo dafa am ay lettres yoo xam ne amul ci benn làkk lu demee ne sood lu demee ne dood lu demee ni too lu demee ni zoo lu demee ni ayin lu demee ni zoo lettre yooyu nga xam ne amul ci beneen làkk dafay wane ne soo bëggee traduire alquranul karim jël sens bi jële ko ci arab yóbbu ko ci beneen làkk il faut am lu ca des bi ci topp mooy alquranul karim làkku arab bi mu wàcc xam nga arab alphabet bi 28 lettres la nekkul 26 loolu lépp dafay tekki ne làkk la bu gën a yaatu làkk yi kon soo bëggee traduir téere boo xam ne làkk ba mu wàcc moo gën a yaatu ci làkk bi nga xam ne moom nga ko jëmee kon il faut que dana am lu des ca sens ba ca maanaama mu amit ñoo xam ne bi ñuy firi alquranul karim di ko traduir dafa am benn een bu ñu jàppal lislaam dañ koy defaale ci biir bu ñuy traduir mu yenn yi nga xamne dañ koy sos mu nek ben image négative pour l'islam lolu itam dafay xew ci ñi nga xamne bu ñuy traduire dañ koy def di ko ci làkku arab di ko yóbbu ci beneen làkk dafa mel ni ñi ngi may wax ne di ñu amone ci temps mi ngi jeex mu nekkoon seen émission bi nga xamne mo tudd alquranul karim ak li ci aju ngeen ci ak seen mbokk Mansour El Hadji malik Fall ñu di leen ndokkel di leen nuyu di leen tàggu di leen wax teg leen foofu seen baaraam ba ñu dellu si inchaa allahu taala dumtum fi riayati llahi wa xifdihi wa amaanatih wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu